asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Kossy TV di am kontaan te mbégte ñu ngi fii diwaanu Kër Massar seet si Serigne Kosso gayndeek borom daaru ndax saa su màggal gi jub see rek day def benn interview boo xam ne da koy jagle euh, ci màggal gi soxna Oumy yow foofu. waaw son aadama comme ni ñu ko waxee rek chaque année baaxoo leen di xool si sëñ bi mu ñuy soññ si naka la ñu war a demee si màggal bi mhm. ana naka lañ ko war a waajale kon tey loolu moo doonoon tey yitte Kosso TV ñoo xool si sëñ bi ma am kontaan te loolu ànd ak ci équipe bu Kosso TV léegi ñu dugg ci biir rek pour waxtaan ak sëñ Kosso Mbacke mu leeral ñu tuuti ci màggal gi ansibila bisimila ñëwal yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Baye Abdou Karim ñu Serigne Fall jërëjëf kenn borom daaru asalaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp di leen jox tamit bu baax di nuyu soxna Ami. waaw soxna Diarra maa ngi lay ziar Aada. maa ngi tamit Serigne Diop. maa nah, ini nii tamit soxna Amie Faye. ñu ngi lay delloo nuyoo bi di la ziar bari bari. di wax ne nag balaa ñoo tàmbali suñu air di soog a mën a tàmbali. auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim barke doon daal. kagaaya naanaat du ba ka gaaya Abdullah moo def lu tax ban woo Cheikh Bamba Ndar mu yebal Abdullah fa sosal Bamba wax fa lu Samba ak Cheikh Bamba Yala Danan la songu te dañ lay jàggi teg la ci seen ñaari tur ca la def leetar ba yàlla tubaab ba woote na ay yoon bamba bañ wuyul ndigal la doon xaar ca yónneen foofa yàlla si kër gi neexoon trop yàlla yàlla wéyal bàyyi. kon bu ko defee ñu tàmbali suñu émission bi di laaj soxna Oumy nga xam si màggal gi. waaw soxna Diarra gannaaw ba ma la ziaraatee ba pare di kontaan bu baax na si question boobu nga ma laaj. Mm-hmm. ndax es mooy suñu yitte muy wàccaayu màggal gi. es moom bu ñu nee wàccaayu màggal gi rek murid yëpp a jug taxaw. Mm-hmm. mën nañoo romb sax murid yi ñëpp ñëpp koy waajal es bi ton mu nii. kon nag war nañoo xam bu baax ana naka lañu war a defee wàccaayu màggal waa léegi si loolu nag may wax ne xanaa ci sama mbokk soxna yi mhm. di leen wax ne nañ nañ nañ waajal màggal comme niñ ko daan waajee di leen soññ xanaa ci sol bu yiw bi ñuy bañ a sol sol yu sol yu sol gàtt yi di ko yóbbu si jumaa ji mhm. yooyu noonu dañ sol sol yu sol bu yiw sol bu sol bu ànd ak bu tegu daal sol bu mhm. tegu si si wàllum diine bañ comme niñ koy defee noonu su ma jàllee si si sa si góor yàlla itam di leen wax comme laxasaay yi rek niñ ko daan defee noonu niñ ko daan kii ba mu naaj ba mu jekk macha allah ñu dellu si dafay xam ne lii kat su sëñ bi la te sëñ bi kat su wootee wootewul ay jaaxaan waaye mu ngi woote loo xamante ne si diina la jëm si si si lu rëy la daal àdduna gi yëpp ñoom ñoo ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy waajal kon ñu war see dem daal ak fierté ak lu baax ak ngëneel ak yooyu noonu. waaw jërëjëf sana mi ginnaaw bañ la laajee question nga répondre ko macha allah waaw ñuy tourné tamit di ñëw si soxna aada di ko jox di ko laaj tamit lan la xam tamit si ñoo xamante ne dañoo war a joxe sas te duñ ko joxe du xotti du sol loo si xam. asalaamaaleykum maam Boussa maa ngi siyaare kàddu yi am na solo loolu ndax Serigne Bamba wootewul yoonam bi mm. ci loo xamante ne neexul yàlla lu neex yàlla la. liggéey na ba am ngërëmal ñaari ràkka yi rek le cinq septembre bi da ko wone daa taw bu nit amul fu mu jaar kon bu wootee yoonam bi dangay dem ñaq jariñu bu dee pom nga jënd boo mënta jënd pom leneen loo ci am lu ci aajowoo nga jox nga dem ko addiya ko defee li nga bëgg yëpp danga koy am solo ko simbi nag ñooñ dañoo xamul dara rek mais ku xam dara doo solo ko simbeeku da ngay bëgg nekk ci waañ bi am ngërëmal Cheikhul Khadim waaw jërëjëf soxna Aada Ah, question yi réponse yi am na solo trop macha allah waaw ñu ñëw si soxna Seynabou di ko laaj tamit di la wax ne suñ bi dafa joxe ndigal ne bu ñuy ñëw màggal masque bi si def benn photo di la laaj tamit loo si xam. waaw soxna Diarra ñu lay ziar baax a baax di la jaajëfal di nuyu sama naataango yi nekk ci plateau bi yëpp waaw ren nag ku ne gis na situation réew fi mu toll. ndaxte yaakaar naa ni port masque fi ñu toll dafa doon loo xam te ne lu obligatoire la hmm. ndaxte mesure barrière bi état jël na ko sëñ bi aussi dañ joxe na ci ndigal te comme ren dañu gis ne nit ñi dañuy jël yeneen façon matu matuwaay maanaam jël masque yi li ci def photo sëriñ yi te masque médical yi nga xam te ne moom lañ koy def bu ñu paree lañ koy daal di sànni ci mbal mi hmm. ndax tey yëkkati photo sëriñ Tuubaa wala yëkkati photo sëñ Saali wala sëñ Fall wala borom daaru daal di sànni ci mbal sax loolu rafet na hmm. loolu moo waral sëñ bi di interdit nit ñi di jël photo yi di ko def ci masque yi ndax kat warmaal nga yëkkati photo sëriñ koo xamante ni mën na ni sa royukaay la di ko roy di ko jëmmal photom jël photom tey suñ fekk ko ci mbalit loolu rafetul mhm. dooloo waral sëñ bi tey interdit nit ñi ñu jël photo sëriñ yi di ko def ci masque yi parce que tamit nekk loo xamante ne lu jaadu la donte na nag respect mesure barrière doon na loo xamante ne lu jaadu la ndaxte màggal dafa nekk ci beneen anam boo xam te ne bokkut ak ñu daan am mhm. ndaxte ndaxte réew suñu tool yaakaar naa ni kenn ku ci nekk ci nga aar sa bopp aar ah, ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal mais amee aussi tamit ñi nga xam ne fa nga jëm hmm. kon nañu respecté li nga xamante ne moom la sëñ bi wax te wéyee ndigal te jëfe ndigal ndax yaakaar naa ne moom moom rek moo ñu wax. Hmm. ñu lay jaajëfal bu wax wax waaw jërëjëf soxna Seyna Bo réponse am na solo trop macha allah waaw noonu lañuy def tam di tourné di ñëw si Serigne Diop di ko laaj tamit lan la xam si góor yàlla yoo xam ne tamit dañuy nekk sa dal ba di solo ko si ñoom tam duñ joxe sas duñ jàpp tam si liggéey bi

di def naka suñu noonu Sëñ Tuubaa santaane wul loolu Sëñ Tuubaa dafa santaane lépp loo nekk na nga si am xam ne la dafa gëm nga nekk fi sas nag bu nee bu nee sas góor yàlla da nga war a matal lépp mais am na góor yàlla xam bu nee leen sax dañuy daw sax du ne duñ joxe sax te bu ñëwee si dal bi ñooy gën a sonal waa dal bi te ñooy gën a bu ñëwee naan sama dal a neex te seen dërëm demu si Sëñ Tuubaa wootewul loolu Sëñ Tuubaa dafa woote maanaam li di génn si nekk di def si màggal gi kon loolu noonu ma si soññi sama mbokku Baye Fall di si foñitam góor yàlla képp ku bokk daayira na xam ne la tax a jóg nga nekk si lu sëñ Tuubaa tere maanaam ñu bañ la seet lu sëñ Tuubaa bëgg ñu nekk si mais rawatina nag góor yàlla yi da ngay gis ku dem màggal Tuubaa day ñëw sax naan damay dem sama kër dalal xarit fekk donc dafay éeri te sëñ Tuubaa wootul loolu Tuubaa maanaam dafa seel kon yow boo fay dem da nga war a sellal sa jikko boo ñibbisee da ngay sellal ni nga mel mhm. noonu nga war a Baye Fall noonu la war a mel mais Baye Fall yi nga xam ne tey yi mbuboo sëñ Tuubaa wala keroog yow Matar dañuy am problème de parce que baal wóor na borom Tuubaa soxna Jaara. maa ngi rafet nag baax a baax si kàddu yi nga yi nga posé. si rafet baax a baax. waaw soxna Jaara ñu ngi lay nuyuwaat di nuyuwaat ñi nga xam ni ñoom la ñu fekk si plateau bi. ñu mm-hmm. leen ziar lu bëree bëri. di kontaan ci pour tontu question bi nga ma laaj. muy mm-hmm. Zika si Zika si doon na loo xam ni. nit ku koy def ne jàpp naa ne defoo ko pour mbooloo wala da nga koy nga toog di ak nga toog jël sa kuy di si kar jàpp naa ne benn la mais dañoo xaw a wute taxaw di si kër nit ñi ngay wax turu ak nga toog sa néeg di ko wax kon wute nañ kon am na tiyaaba yu bëree bëri yu nekk ci diggante boobu mu doon seen différence si kër si nag ba ñu ko liggéeyee mën nañ ne yàgg na yàggul mu doon loo xam nag doon woon loo xam ni séntu woon nañ ko pour doon ko ñu ngi si loo xam ne daf ñoo fekk si rek daal noonu laa ko a waxee daal mhm. ndax si kuréel ci lañu góoñ ne nag di yàlla defal ñu si ñu ñaan am ndam lu gën a kawe kawe mhm. ci cadre référence li ma wax ndax saa boo ko waxee peut-être ñeneen nañ jàpp ne da nga soxor wala danga inyan wala sis la wala dala meman man yàlla na ni zikar munu mala wax ni diw moom moo tax ma dugg si zikar wala diw lay roy ci zikar ndax ñun ni ñu jëlee si zikar la moom moo tax zikar si dafa doon loo xam ne ñun ba ñuy soog a door dañoo woon nañ zikar ba noppi di ñu jox ni yoo xam ne ñun suñu diwaan ñoo ko suñu bopp ñu di ko zikar xëy na loolu moo tax mënuñoo am benn référence ci zikar taxul tam ma benn zikarkat bu bu bu kii amul wala nangam. Hmm. am na zikarkat yoo xam ne tey mën naa ne ñoo ma dàq zikar wala ñoo ma ci gën a sori. Hmm. mais xam nga loolu am référence dañoo di ndax ki am référence mooy ki nga xam ne si moom ngay roy. Hmm. peut-être ay erreur ngay jël di zikar mais yàlla dogalu loolu si moom. sama référence moom mu ne wax mooy sama wasila. moom laa mën a wax moom mooy sama référence. ci jàllale waale benn message ci mm-hmm. màggal gi muy ci wàllum soxna yi ak góor yàlla yi mm-hmm. ak suñu diggante ñun murit yi ak Sénégal mm-hmm. màggal gi doon na loo xamante ni Serigne Touba moo ko woote Masamba wootewu ko Mademba wootewu ko kon dañoo war a dem màggali ngir jëm yàlla ndax Serigne Touba daf ne ñëw santale ko yàlla kon kuy sant yàlla danga ko war a sant ngir jëmmam dañoo war dem màggal yi ngir yàlla bañ a màggal yi ngir di sol wala naan dañuy màggal yi par force wala dañuy nàngam par mm-hmm. ndax màggal gi lépp si war a am xalifa bi moo ko war a wax muy Cheikh Mountakha Mbacké moom moo ko war a wax mm-hmm. kon ñun jàpp naa ne amuñu droit di wax lenn si màggal ñu di si yokk wala ñu di si wàññi lu mu wax rek ñun jàpp nañu loolu mm-hmm. loolu daal lañ si doon jàllale waale ñu ngi tudd bu baax ci kàddu yi macha allah soxna Ami waxtaan bi am na solo trop macha allah li moo nekk suñu émission wàccaay màggal gi ak waa Kossy TV di leen jox tam dig daje ba beneen yoon ak yeneen invité wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu. Ah,